asalaamaaleykum mbokk Touba ñoo ngi leen di ziar leen baaxee information yoo xam ne nday waaj am. muy mbind bi nga xam ne war nañ koo def ci liste électorale yi. mbind boobu nag muy commencé le 6 avril bii ñu jëm di yemook alxemes di jeex le 2 mai bee di ñëw. muy maanaam lu toll ci weer woo xam ne dañuy bind bu période bay bu jàllee nag. doo mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoo mën ñoo mën a bokk ci ñiy voté bu élection ñëwee. mbind mi nag ñan la ñan ñoo ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañoo dëkk Touba bindoo woon ci police nga xam ne seen carte musta ñoo ñu seen carte yooyu la ñuy jël seen carte d'identité yooyu la ñuy jël yóbbu ko ci commission yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba bi ci gën a fës nekk sous préfecture bu Ndaam mooy arrondissement Ndaam yóbbu carte d'identité boobu kese la ñuy yóbbu dem bindu ji dañ koy photocopie nag bu ñu dem ñi nga xam ne nag dañoo jógee beneen dëkk ñëw tuxu si Touba war a changer soppi seen bërëbu votekaay ñu moom dañuy dem ca délégué quartier wala chef de village ba leen gën a jege mu defal leen certificat de domicile certificat de domicile boobu ñu yóbbu ko commune bu Touba mu defal leen résidence bu ko defee ñu boole résidence ba carte d'identité bi dem yóbbu ko ca euh, commission ba nekk dañoo bëgg a soppi fi ñu daan voté di voté mbir Touba kon donc ñi nga xam ne Touba lañ dëkk ñoom soxlawul ñuy wut résidence ñi nga xam ne dañoo juddoo Touba wala ñu bindoo fii ci Touba seen carte d'identité ñoom soxlawuñu résidence carte d'identité bi kese la ñuy photocopie yóbbu ko ci commission ba ñu bind leen ci liste électorale yi ñi nga xam ne dañoo bindu woon te seen carte d'identité jot ak génn wala ñu bind woon tayel jàppoon leen ba nga xam ne jëliwuñ ko woon nañ dem sous préfecture bu ndaam ndax lu ëpp ay carte dante li mu yu ëpp junni carte d'identité ñoo fa yoo xam ne seeni borom jël seeguñ ko ñu seet ba xam du seen bos da cee bokk wala bokk ci bu ci bokkul nag ñu door a binduwaat kon nag ñoo ngi soññee ndawi Touba yépp rawatina ñi nga xam ne dañ fee tuxu si ndax Touba ñëpp xam nañ ne ni muy màggee jéggi na dayoo ñi nga xam ne bëgg nañ itte def nañ itte élection yii di ñëw ñu bokk ci ñu dem bindu ji ngir di man di fal wala man di folli jaa ngeen jëf